mbokk yi jaajëfati topp gi ak teewlu gi file ci Dakar Actu TV tey nag xibaar yi dañu koy tënk rekk ci la li ci gëna fës nag ñu doore ko rekk ci mariyage yu footballeur bile di Sadio Mané moom nag démb la takk soxna ki nga xam ne nag moom la takk di wuyoo rekk ci turu Aïcha Tamba ginnaaw li ni mel nag yëf yi nag mu ngi woy rekk di jur coowa ci askan wi li ni mel tax ba ku ne rek di ci yëy bi ak di ci commenter internet yu bëri daal di nañ cee réagir bu amee ñenn ñu gis ne kile di Sadio Mané takk na xale bu jigéen bu baax bu yiw jëm rek ci simplicité bi nga xam ne rek moom mi lee di Sadio Mané wane na ko ndax nag ndax dayo bi mu am rek waaye am ñeneen ñi nga xam ne rek gisewuñu li ni mel ndax nag li ñu xamle rek moo di rek rek góor gu ne rek ak sa choix naam nag kile di ay Aïcha Tamba yiw na muuru na deful daray lu ëpp waaye itam rek loolu warul tax ñu naan jigéen ñëpp dañoo war a mel ni moom muuru simple ndax nag jigéen teg na greffage sexy waaye itam rek nekk ku baax keneen ku